asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bayeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu ko li ñu seeti bopp xibaar yi ci etu attekaay bu mag bu nekk ci biir réew mi muy high court bu Gambie mi ñoom naka ñu ngi doon atte tuuma goo xam ne naka nguur gi teg na ko ci kaw juróomi nit wala sax juróom-ñaari nit di leen tuuma ne ñoom naka dañu bëggoon a def ab coup d'état jëmale ko ci nguuru président Adama Barrow bi ci àtte goo xam ne naka def nañ ko jëmale ko ci ñii ñoom naka wax nañ ne wala sax dàqalu nañ mbir min ne ñoom naka defu defuñu loolee ñaawteef cadet assistant superintendent bu Gambia police force mi wuyee ci Mohamed Waaye Daabo moom ci waxtaan gu mu am ak QTV xamal nañu tuuma goo xam ne naka ñu ngi ko teg ci ab police officer dafa sàcc mobile indi na naka ay leeral ci mbir yooyu. Gambia ci taxawaay goo xam ne nag jël nañ ko jaarale ko si jëwrin bu ñu dénk wàllu koppar gi ak Central Bank bu Gambia bi ñu ngi fas yéene am nag ndaje goo xam ne ndaje gu mag la pour waxtaanee mbir yoo xam ne nag moo aju ci wàllu koppar gi ak doxalinam bu ñëwee ci tundub Afrique bi te ndaje gi nag mbootaay bu ñu naan West African Monetary Agency Forum noonu naka lañ ko tuddee. mbokk yi li doon boppu xibaar yi ñu taxilu bu ñu dellu see ñu yaatal xibaar yi fi jot a am ci bëccëgub tey bi. suñuy xibaar mu njëkk mu ngi dem nag ci ëttu àttekaay bu gën a mag bu nekk ci biir réew mi muy high court bu Gambie bi umpale buñ la nag ci fan yi ñu passé ñu ngi doon àtte jëmale ko nag ci tuma goo xam ne ñu ngi ko teg ci juróom-ñaari nit ne ñoom nag dañu bëggoon a def ab coup ta pour génnee fi nag nguuru président Adama Barrow bi ñii nag ci àtte gi ñoom ñëpp nga xam ne nag tuuma nañ leen dàqalu nañ naka tuuma kii di xamle ne ñoom defuñu naka bile ñaawteef juróom ñoo xam ne naka ñu ngeen liggéey ci wàllu taqadeer bi ak it kenn koo xam ne naka ab police officer la teewlu nañ naka ci ittoatteekaay bi pour tontu ci tuuma yoo xam ne naka teg nañ ko seen kaw te réew mi naka yóbbu leen ko ci ittoatteekaay bi ñii naka lu ñu leen tuuma mooy naka dañu mànkoo bëggoon a def naka ab coup d'état ci weeru novembre bu ñu passé mu xewal naka ci at bu ñu passé juróom ñi naka mooy Sana Fadera Jibril Dabo Ibrahima Sano Omar Ndiaye ak Fabakary Diawara ñi nga xam ne naka ñooñu la ñu tuuma ba ñu teewloo naka ci ettu àtteekaay bi wala sax bañ leen xëccee yóbbu leen ci ettu àtteekaay bi ñoom naka dàqalu nañ tuuma bi Justice Basiru VP Mahoney moom mu doon koo xam ne naka moo jiite àtte gi wala sax nekk di àtte mbir mi ci ettu àtteekaay bu mag bi moom naka laaj na ñi nga xam ne naka ñoom la ñu tuuma ne pour ñu gaaral seenub seede jëmale ko ci mbir moo xam ne naka boobu lañ leen tuuma ku njëkk a taxaw nag pour gaaral seede Sana Fadera moom mu ñu tuuma ne moom moo jiite ñu bëggoon a def nag coup d'état pour génne fi nguuru président Adama Barrow bi moom naka tuuma nañ ko ñetti mbir mooy ne naka dafa bëggoon a def coup d'état tamit naka dafa jéggi luwaa bu réew mi tamit naka nit la koo xam ne naka dafa def loo xam ne naka antuwut ak luwaa benn yoon moom naka ci seddagu gaaral dàqalu na naka gii di wax ne naka deful lu mel noonu bam fa bayee ku ñu naan Jibril Daabo moom moo teewlu Jibril tamit teg nañ naka ñeenti daan ci kawam te daan yëpp daf ko dàqalu ne moom naka deful lu mel noonu keneen ku ci topp naka mooy Ibrahima Sano moom it naka ñu teg ko ay daan ne naka dafa manko ak ñi bëggoon a def naka naka ak da d'état waaye tamit saanoo dàqali na ko ñeenteeli nit ku taxaw naka ko pour gaaral seede muy Omar Ndiaye mo it na dàqali na tuuma yi ñu teg ci kawam te ku mujjee gaaral seede mooy Fabakary Jawara moom mu doon naka police officer bi mo it naka dàqali na tuuma goo xam ne na réew mi teg nañ ko ci kawam. ginnaaw ñoom ñëpp dañu dàqaloo naka bile tuuma ne defuñu na ñaawteef gu mel noonu state council bi di am mo na naka laaj na ñu nekk naka di àtt mi ne pour na ñu may leen ñu jàpp beneen date pour ñu teewluwaat ci tottikaay bi ngir gëstu mbir boo xam ne naka ñu ngi ko àtte ci tontu googu naka defense counsel bi di lawyer LS Camara moom naka xamal na code bi si jamono ji naka xaatim goo xam ne waxoon nañ naka pour réew mi yóbbu ko muy xaatim gi wane mbir yoo xam ne naka dañ leen tuuma ak i seede xaatim googu naka ñëwul mu nekkoon naka àtte gi nga xam ne naka ñu ngi koo def mbir la goo xam ne naka teguñ ko fenn ndax naka àtte la goo xam ne wala sax ay tuuma la yoo xam ne naka teguñ ko fenn ndax amul seede yu dëgër yu koy dooleel ba tey tamit mu continué di wax ne att gi naka dafa nekk di yéexal naka soxla ñii ni ndax naka ki nga xam ne moom moo fa taxawal nguur gi amul ay seede yi dëgër yi wane ne tuba yi mu teg naka ci kaw ndaw yi dëgg la ba tey tamit mu continué di wax ne si jamono ji naka lu ñu soxla mooy naka ñu jël att gi tegee ko ne teggi naka daani ci kaw naka ndaw ñi waaye naka étu attekaay bi ñoom naka ñu ngi gëstu mbir mi te naka ñu ngi bàyyi xel ñaari boor yëpp ak it kàddu yoo xam ne naka ñu ngi ko nekk di gaaral ba tey tamit àttekat yoo xam ne naka ñoo fa taxawal ne nit ñu tuuma ñoom naka ñu ngi yóbbu seen seede yu dëgër pour wane ne naka seen nit ñu tuuma yoo xam ne naka yoo la ñu teg seen kaw doon na mbir boo xam ne naka nekkul dëgg te naka seede gi ci altine bi lañ ko nar a yóbbu ci totteekaay bi te kay jubaat naka moo ko yóbbu ba tey tamit ki nga xam ne naka mooy looyaa wu ñeenteeli nit koo xam ne naka tuuma nañ ko muy Omar Ndiaye moom naka mu ngi wane naqaram ci tottekaay bi di wane ne kiliyaanam bi naka ne doon na nit koo xam ne naka yóbbuñ ko si kaso gi ñu ngi ko téye naka ci barracks bi te loolu naka doon na mbir woo xam ne antuwut naka ak yelleefam fam mune naka mu ngi ñax code gi pour ki nga xam ne naka mooy kiliyanam bi di Omar Ndiaye pour ñu génnee ko naka ci li nga xam ne mooy ci barracks bi yóbbu ko naka ci bi si jamono ji naka àtte gi tar na torop te naka tuxal nañ ko ba fukki fan ak juróom-benn ci weeru février ñu ne te àtte gi naka am nañ yaakaar ne nañ ko defaat naka ñaar fukki fan ak benn ci weeru février defaat ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février ba ñaareeli fan bi naka ci weeru maaj bi te li yëpp naka dañ koy jël rek pour gis ndax dëgg-dëgg ñii naka luñ leen tuuma def nañ ko ab ndiit mbokk yi ba tey ci xibaar yi cadet assistant superintendent si bànqaasu Gambia police force bi muy wuyoo ci Mohamed Waye Dabo moom nag ci waxtaan goo xam ne nag am na ko ak QTV leeral na ci ab police officer goo xam ne nag ñu ngi ko gis ci vidéo ñuy wane ne nag dafa sàcc ab mobile te nag ndaw yoo xam ne ñoom ñoo ko jàpp ñu toroxal ko loon ci leeral goo xam ne nag wax na ko QTV moom nag xam na ne ki nga xam ne nag moom la ñu jàpp ko ne ab sàcc la muy wuyoo ci Momodou Mbow nit la koo xam ne nag dafa bokk ci ñoom maanaam ab police officer la tey naka dañ ko jàngal li nga xam ne naka muy mbirum dawal moto mi Mamadou Mbow naka doon na nit koo xam ne naka ci altine bi la ndaw ñoo xam ne naka ñooy yeewoo ci dëkkub Ñoofere gi ñu téye ko naka ne dafa sàcc ab mobile ñu toroxal ko lool boo xoolee naka ci vidéo gi moom naka ba ñu ko jàppee ñu ngi ko doon vidéo te naka ñu ngi ko dugaloon ci buntu xarala yi mista Mbow moom naka wax na ne bokk na naka ci ñi nga xam ne mooy Gambia Police Force maanaam nit ñoo xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci wàllu police gi moo taxoon nag QTV amoon si yow waxtaan jaarale ko seen diggante ak ak cadet assistant superintendent bi di Mouhamed Waye Dabo Dabo nag moom ci waxtaan gu ñu am ak moom xamal nañu ne naka ne waa ji tuuma goo xam ne naka teg nañ ko ci kawam ne naka dafa sàcc ab mobile mbir la goo xam ne naka ñoom rafetlu wuñ ko te naka ndaw la koo xam ne dafa nekk di liggéey naka ci Gambia police force lii du rafetal naka dérob ñi nga xam ne naka ñooy police ba tey tamit mu continué di wax si jamono ji naka xibaar gi ñi nga xam ne naka ñooy Gambia police force yegg na naka ci ñoom te naka ay weer ci ginnaaw kii naka doon na nit koo xam ne dañ ko jàngaloon li nga xam ne naka mooy dawal moto pour mu mun a bokk naka ci bànqaasu police gi te yi naka dañ amoon wóolute ci moom torop ñu jox ko naka ab lansin lansin goo xam ne naka moo koy may pour muy dawal naka moto yoo xam ne moto police la wala képp moto goo xam ne naka nguur gaa ko moom mun na koo dawal cadet assistant superintendent Mr Dabo mu continué di wax ne naka sàcc doon na mbir boo xam ne lu waa nanguwul ko te képp koo xam ne naka jàpp nañ la nga koo def yow naka nañ la jàpp ne yow ñaawteef nga def te bu boobaa lu waa naka dina la teg loxoon mu ne yii naka mu continué di wax ne te ñoom naka ñoom ñi nga xam ne ñooy politique seen liggéey bi naka dañ ko war a àndale ak luwaa mu ne si jamono ji naka lu ñu bugg a def mooy pour xamal naka Gambien si ne ñun naka suñu liggéey bi dañ ko àndale ak luwa te seetuñ si bëtu kenn ak koo munta doon buñ la jàppee naka ngay def mbir boo xam ne naka wut ak luwaa su boobaa naka luwaa dina la teg loxo mu ne ñun police yi naka dama am yaakaar ne ñun naka ñoo war a jiitu ci mbir yoo xam ne naka mooy isi dëggu jiitu si mbir yoo xam ne naka ñooy isi jàmm jiitu ci mbir yoo xam ne naka ñooy isi bennoon mu ne waaye naka jéggi luwaa yii doon na mbir boo xam ne ñun duñ ko nangu benn yoon te bànqaasu police gi naka nañ ci jël matuwaay cadet assistant superintendent Dabo ba tey rek mu continué di wax ne ñoom naka ñu ngi def seen kéem tolluwaay kattan pour gis naka réew mi wóolu nañ naka ñi nga xam ne ñooy police yi ginnaaw seen der naka ba mu yàqoo woon ci roon nguur gu ñu passé mu ne ba tey rek mu continué di wax ne ñoom naka seen bànqaas bi ñu ngi def seen kéem tolluwaay kattan pour isi naka ay sarto yi es ngir liggéey naka ci li indi ab yokkute ci kaaraangeeb askan wi tamit indi jàmm ci biir réew mi génnee fi ñaawteef ak it mbirum njuñ jaaj mu continué di wax ne tamit ñoom seen liggéey bi lu mu doon gisee naka ab wéccite ci dundinu askan wi mu ne kon a ab police officer warta génne naka di def ay njuuj njaaj wala di def mbir boo xam ne naka antuwul ak luwaa bi mu ne mu ngi ñaax naka képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci bànqaasu police gi wala nga nekk di liggéey ci wàllu kaaraange bi pour naka nga bàyyi mbir yoo xam ne naka dafay yàq seenu der nga teggi sa loxo ci mbir yoo xam ne naka mooy yàq kaaraange bu mi yàq naka luwaa wu réew mi Mr Dabo ba tey rek mu continué di wax ne mu ngi ñaax naka askan wi pour naka ñu topp luwaawu réew mi te bu ñu topp naka seen xol ba yàq naka li nga xam ne mooy luwaa bi tamit naka mu ne mu leen di ñaax pour bu ñu gisee lenn loo xam ne rek antuwut ak luwa mu aju ci wàllub ñaawteef wala mbirum njuuj njaaj nañu daw naka ci police station bu leen gën a jege ñu dem naka joxe fa report bi. nguurub Gambia bi ci loxo boo xam ne nag jaarale nañ ko ci ministre bu ñu dénk wàllub kaarange bi. ñu ngi commencé naka am na go xam ne ñu ngi ko nekk di def ci biir réew mi pour gëstu naka birub koom-koom gi ak yokkuteeb koom-koom gi tamit naka gëstu koppar goo xam ne naka dañ ko dee leblante pour dooleel naka réew yi ndaje gi naka ñu ngi ko commencé ñaari fan ci weer bi ñu nekk te dinañ ko dal keppal naka fukki fan ci weer bi ñu nekk ndaje gi ñu ngi ko ubbi naka ci alxames bu ñu passé te waxtaan gi lu mu doon rek mooy pour yokkuteeb koom-koom gi mbiru bor yi ak ki tamit gëstu naka seenu comité bi yokkute goo xam ne naka ñu ngi ko bugg am tamit naka dafa bokk ci seenu ndaje bi pour ñu waxtaanee mbir yoo xam ne naka West Africa Monetary Institute bànqaas gi naka mu ngi ko soxla pour doole naka tund yi nekkee si Afrique sowu jant indi naka ab wéccite sa ndaje ba naka ñu ne am na ci kilifa yoo xam ne naka ñu ngi bàyyeekoo ci tund yi nekk si Afrique sowu jant am si ñoo xam ne naka ñu ngi bàyyeekoo ci Central Bank am si ñoo xam ne naka ñu ngi bàyyeekoo si jëwli ñu ngi dénk wàllub koppar gi bu ñu wecc tundub Afrique bi ñenn ñi naka ñu ngi bàyyeekoo ci ECOWAS Monetary Institute bi te naka ñii ñëpp dañoo mànkoo naka pour waxtaanee ab satta goo xam ne ñu ngi ko fas yéene pour dooleel indi tamit ab yokkute ci seen liggéey bi tamit naka mun a manko saafaraal jafe-jafe goo xam ne naka askan waa ngi koy bu ñëwee ci tundub Afrique bi te mu aju naka ci wàllub koppar Mamadou Bamba Sakho moom mu doon naka directeur général ci West Africa Monetary Agency bi moom naka ci kàddu gu mu gaaral na ne naka ci at yi ñu nekk ci gëstu goo xam ne naka ñu ngi koy def gis nañ ne naka mbiru koom-koom gi mu ngi dellu ginnaaw torop te looloo tax naka ñoom ñu jël matuwaay pour gis ne naka indi nañ si ab wéccite ndax atub 2022 mi at bi ñu passé ndar keppal nañ ko naka te mënuñ cee am benn yokkute mu continué di wax ne naka si jamono ji tànk yokkute yi la ñu war a taxaw saafaraal jafe-jafe yi te ay sotta yuy dooleel naka tund yi Sakho ba tey rek mu continué di wax ne ki nga xam ne naka mooy gouverneur bu nekkoon ci Central Bank bu Gambie bi ooyoon na naka kilifa yi pour ñu taxawal naka satta yu dëgër doole naka yoole satta pour gis naka liggéey nañ ci mbir yoo xam ne mooy isi naka ab yokkute. Dr Hassan Mahmoud moom mu doon naka directeur ci monetary policy bi nekk di liggéey ci central bank bu Nigeria bi moom mu doon koo xam ne naka ci jamono ji moo doonoon chairman technical committee bi te ci jamono ji naka mu ngi waaj a tekki nombol tànkam moom naka gaara na kàddoom di wax da je bi yokkute na ci gis te dinañ fexe pour gis naka ñoom ñëpp nangatoo nañ ci ab satta yu ñoo doolalee seen bopp. Dr Peter Kofi Dazi moom mu doon naka acting director bi. ci bànqaas goo xam ne naka ñoom ñoo saytu li nga xam ne naka mooy wàllu yokkuteeb koom-koom gi moom it naka gaaral na kàddoom di wax ne matuwaay gi naka doon na mbir goo xam ne naka dafa am solo te yi naka moom façon ndaje mel ni naka mu ngi koo rafetlu Ibrahima M Wada moom mu doon director of research central bank bu Gambia bi mu taxawal fa naka central bank governor bi di Buha Sedi moom it naka gaaral na kàddoom di rafetlu naka ndaje bi di wax ne naka mbir la goo xam ne yokkute la moo isi ci tundub Afrique bi. semaine ngoo xam ne naka jël nañ ko pour dajaloo waxtaanee mbir yoo xam ne naka dafay indi yokkute ci wàllu koom-koom gi ku ci mel ni directeur général si ñoom naka teewlu nañ fa te na naka matuwaay la goo xam ne dañ ko jël rek pour waxtaanee yokkute koom-koom goo xam ne naka soxla nañ ko mu tax naka bànqaas ECOWAS bi ñu mànkoo ak ñoom tamit naka mànkoo ak Central Bank bu West Africa jël naka matuwaay gi pour ñoom ñëpp ñu nangutoo ci ab sotta gu ñoo doole naka ci at bi ñu nekk ndaje gi naka ni ne gis nañ ci ab yokkute te balaa ñu koy ndar keppal dinañ ndaje naka ak technical committee bi te loolu naka dina am juróom benn fan dem ba juróom ñaari fan ci weer bi ñu nekk committee bi tamit ñu ne dinañ dajaloo ak gouvernance yi pour waxtaan ak ñoom te loolu naka nañ ko def juróom-ñeenti fan ci weeru february bés buñ koy ndar keppal bés boobu naka muy doon fukki fan ci weeru february bés bu naka dañoo nangatoo ci sartey bu fekkee ne naka am nañ lenn lu ñoo signé ñu signé ko pour liggéey naka ci yokkute mbir moomee banqaas goo xam ne nag ñoom ñooy saytu sarta yoo xam ne ñu ngi ko tëral ci wàllum njàng mi ak it yokkuteem njàng mi ñoo nar am benn fadum daje jaar la ko seen diggante ak it jëwriñ goo xam ne nag ñu ngi ko dénk wàllum njàngam dëgg bi ak njàngam kaw gi matuwaay bi nag jël nañ ko pour gis na nag waxtaanee nañ yokkute yoo xam ne nag ñu ngi ko bëgg am ci mbirum njàng te seenum ndaje ñu ngi ko def nag ci àllarba bi banqaas bi nag seenub taxawaay bi ñu ngi ko nekk di def rek jaarale ko ci ndimbal goo xam ne bayeekoo na ci seenub àndandoo yi nekk sa bitim réew banqaas ci mel ni UNESCO ak World Bank bi ñu ngi fas yéene dooleel wàllum gëstu gi mbirum njàng mi tamit dooleel li nga xam ne naka mooy wàllum njàngam métier gi ministre bu ñu dégg wàllum njàngub digg bi ak njàngub kaw gi ñoom naka seen liggéey gi commencé nañ ko depuis si atum 2017 te matuwaay gi naka dañ ko jël rek pour gis ne mbirum njàng mi naka am nañ ci jëm kanam education curriculum muy sarta goo xam ne naka ñu ngi ko tëral jëmale ko ci mbirum njàng mi doon na mbir boo xam ne naka ñu ngi ko gestuwaat tamit naka nañ ko dooleel dëgëral ko te gis na naka xale yi dund nañ ko ci seen njàng mi ñu ne lii naka dina yokk fullagu ci njàng mi yokk dëggu ci nekk tamit naka dina tax doomi réew yi ñu am naka njàng gu baax mu bokk tamit ci matuwaay yoo xam ne naka jël nañ ko pour ici wéccati ci wàllub gestu gi mbirub tund gi ak it wàllub koom-koom gi ak i yokkute goo xam ne naka réew maa ko bugg a am Mamadou Dieng moom mu doon director of curriculum research moom naka gaara na kàddoom di wax ne kilifa yi naka si jamono ji ñoom ñëpp ñu ngi wante loxo pour gis naka doole nañ bi la sarta jaarale ko naka ci taalibe yi ñu am naka njàng gu dëggu njàng goo xam ne naka dafay méngoog njàngu bitim réew gi mu ne naka ci at yu ñu passé at yu ci mel ni atu 2003 dem ba ci atu 2008 njàng mi naka ñu ngi ci tëralan ab sotta goo xam ne jëfandikoo nañ ko bàyyi ko naka si atu 2016 dem ba si atu 2013 mu ne naka satt yii doon na biir goo xam ne naka dafay fatt banqaas yoo xam ne yooyu lañ nekkoon naka di am ab jafe-jafe tamit naka di taxale am fulla ci seenum njàng mi ñu fullaal ko def ci naka ab fayda ñu mun cee am naka ab yokkute tamit naka jàngalekat yi satt gi naka na leen jàppale pour ñoom ñu xam tànk yu ñoo jël ak doxalin yoo xam ne naka yooyu dañoo mën a jël pour dooleel xale yi xam-xam faatu Fatou Deli Bitèye ak Khadijatou E Jobaate ñoom ñëpp ñu doon naka directorate ñoom naka gaara nañ seen kàddu di wax na naka curriculum bi mbir la goo xam ne naka ñu ngi koo rafetlu te yi naka dafa bokk ci yéene gu ñu am pour jàppale naka jàngalekat yi ñoo xam naka sarta yi ñoo mën a jël pour jàngal xale yi ci mbir yoo xam ne moo leen di indil naka ab yokkute tamit mbir yoo xam ne naka ñu ngi koo jàng ci bug yi ñu def ko naka ab practice maanaam di ko wan xale yi nuñ koy defee ngir ñu gën cee mën a am naka ab xam sartagu es goo xam ne naka tëral nañ ko mu ngi fas yéene doole naka ñetti subject yoo xam ne dañ ko di jàng si buntu jàngee kaay yi subject yi ci mel ni English language mathematics ak civic education ñu ne naka dafa bokk tamit ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko ñu ngi ci bugg a yokk benn subject waaye naka si jamono ji ñett yi naka la ñu jot a dooleel te lii naka nañ ci dooleel xale yi ngir naka ñu am ci ab yokkute ñu ne naka ci at yi ñu nekk naka buntu jàngee kaay yi mbirum jàng mi mu ngi dellu ginnaaw surtout ma lowa oppa éducation bi ñu ne naka ñu ngi jël matuwaay pour gis ne doole nañ ko am na ci tamit yenn sarta yoo xam ne na ñu ngi ko tëral waaye naka feeñaluñ ko te lii naka na doon mbir boo xam ne dañ koy jëfandikoo si buntu jàngeekaay yi ngir dooleel xale yi dooleel naka seen wàllum njàng mi ngir naka am xam-xam gu màcc xam lu ñoo njàng ba pare ëllëg mu mun leen a njëriñ jàngalekat yi tamit nañ leen yokk xam-xam ci nu ñoo mën a jëlee sart gi nuñ koy mën a doxalee ci classroom yi pour dooleel naka xale yi directeurs yi naka si jamono ji ñu ngi ñaax naka képp koo xam ne yaa ngi bokk si ndaje bi pour naka nga lëkkaloo ak sa buntu jàngekaay boo delloo tamit naka ñu fexe naka pour gis ne sarta wala sax waxtaan goo xam ne naka am nañ ko bu ñu demee naka si buntu jàngekaay ñu fisal ko ñu mun a doole xale yi ndax xale yi naka bu ñu leen jàppale wut mbirum mi naka mun na moo am ab dellu ginnaaw gu yi mbootaay bu ñu naan NISA ñu doon naka ay mbootaay yoo xam ne ñoom dañuy taxaw naka pour bàyyi xel lu naka ci wàllu tàggat yaram gi ñoom naka ñoo lëkkaloo ak journée bi ñu dénk wàllu ndaw ñu mbirub tàggat yaram gi ci àllarba bi ñuy ñoo ngénte ab bànqaas bu ñu tuddee local organizing committee bi matuwaay bi naka ñu jël ko balaa ñooy dem naka si jongante goo xam ne ñu ngi ko tuddee naka organisation of workers sport for Africa championship lii naka mu ngi war a am juróom benn fan dem ba fukki fan ak ñaar ci weeru màcc at bi ñu nekk si ndaje goo xam ne naka am nañ ko taskatu xibaar yi nii saa ñoom naka lëkkaloo nañ ak seen àndandoo yëpp pour xamal taskatu xibaar yi préparé goo xam ne naka ñu ngi ko def ci dëkku Banjul gi pour war a am naka seen jongante bu ñu nekk di waajal sa waxtaan nga tamit xamal nañ leen sart yoo xam ne naka ñu ngi ko jël jëmale ko naka ci wàllub jo tàggat yaram bi lu ci mel ni football volleyball handball ak it walk for health Seeku bi jaaju moom mu doon naka président bu mbootaayu NISA bi moom naka wax na ne jongante goo xam ne naka ñu ngi ko war am ci biir réew mi ci atum 2023 doon na jongante goo xam ne naka dañ ko teg ci loxob réewu Gambie bi mu ne te jongante la goo xam ne naka Gambie nañ ci tasee naka ak dëkkub Algérie bi mu ne daanaka liggéeykat yi war a bàyyeekoo si ñaar fukki dëkk yu nekkee ci tundub Afrique bi ñoom ñoo cee dajaloo pour am naka jongante gi Bakary Waay Badji moom mu doon naka ministre bu ñu dénk wàllum ndaw ji ak tàggat yaram moom wax na ne naka jongante gi dina indi yokkute bu rëy bu ñëwee naka ci biir réew mi ndax naka gan yu bari bu ñu wàccee ci hôtel naka la ñoo fanaan te loolu naka dina indi yokkute ci wàllum koom-koom gi dina indi yokkute ci wàllum dem ak dikk bi aki i jumtuwaay yoo xam ne naka dañ koy jëfandikoo dañ koy jëndee ci biir réew mi te xaalis boobu ci koom-koomu réew mi lay mu continué di wane tamit gan yi wàcc naka ci biir réew mi surtout ma ñoo xam ne naka ay diplomate leen réew mi naka nañ mën di lëkkaloo ak ñoom waxtaan ci mbir yoo xam ne mooy isi naka ab yokkute ci biir réew mi tamit mu war a mën a rataxal diggante Gambie ak yeneen dëkk yi Marshal Mendy moom mu doon nekk executive director ci National Sport Council bi moom mu ne mu ngi ñaax ñu bokk ci comité bi pour ñu liggéey bu baax pour gis naka ndaje bi am nañ ko ci jàmmoon sa njeexantalu ndaje ba naka kilifa yi am nañ naka ab gala night yu joxe fa naka ay cadeau ak it ay award yoo xam ne naka jox nañ ko seen nit ñi ñu foog ne naka ñoom ñoo gën a xarañ bu ñëwee naka ci liggéey bi ñu delloo ci tamit njukkal banqaas yu leen di doolal ci wàllu koom-koom bi ak it banqaas yoo xam ne naka ñoo jàpp ci seenu mbagg yi di leen doolal ginnaaw ñu commencé seenu liggéey bi sport championship bi naka ñu ne am nañ yaakaar ne lëkkaloo nga xam ne naka dañu ko def ak seen àndandoo yi ak yeneen dëkk yi dina isil naka ab yokkute ci liggéeykat yoo xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci wàllu tàggat yaram bi mbokk yi li ya doonoon xibaar yi ñu leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaatal yi ngeen dis doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu me ñu ñeen doog jàmm jërë ngeen jëf ci topp bi wasalaam